asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi mujj jëm ci tàggat yaram waaye nag laataa loolee kuy gën ci paas bu ci go dañu lay ñaan nga abonné te bés kolos de notification bi loolee dina waral vidéo bu ñëw yaay doon ki koy njëkk a jotu bu leen nag dal commentaire waaye nag sunu sponsor bi la di woon xbet 1x 707 474 bi nag numéro 2 bi ma dem te léegi mu feesa ku ci bëgg dugg léegi ci commentaire yi danañu fi def lien bi moom doomu

Ford yi moom nag ma nga ci club bi Manchester United xam ngeen nag amu waraloon mu waxoon ñu ne di Manchester United ne leen dama bëgg ngeen wax ci mbir wala kat bu da ngeen ma bëgg ma toog fi ngeen prononcé sama contrat wax ci mbir bu nag bëggatoo leen koy ngeen da demee bàyyi nànk ma seeti beneen club moom doomu Angleterre bi la di loole nag waa Manchester United doon nañ ca liggéey jamono ji nag may wax yéen xam ngeen ne waa nag jamono ji may wax yéen mënu sukkandikoo ci Daily Express sport sukkandiku ci Star sport ñoo ngi ñu jógale nag ñi la baax a baax ngir wutali Angleterre bu ñu àggee ca Manchester United wax ak ya ba dañu leen mën a jaay kili ji moom nag naanaan la waaye nag boo sañoon am club boo xamante ci ne dina fa mën di tëccileeru ay maxi ngir kat li muy baa mi bëri na lool rawatina saison dañuy wutali nag fi nga xamante ci Atlético de Madrid di Morata xam ngeen ne naanaan la ñu leen di waa Atlético de Madrid ñoo ko aaloon waa Juventus mu nekkoon fa nag nekkoon fa naanaan daan dugal bi yu bëri ñu leen di waa Juventus nag ba ji ñu xaw a mel ne gone gi dafa gisatul ñu delloowaat ko ci Atlético Madrid waaye nag ba ñu dajee moom gone gi dalee na toroxal dugal leen ñetti bal loole nag moo waraloon ñi li nga xamante ci ñoom ñoo waa Juventus bëggaan gone gi ngir dal di koy abu ñi leen Atlético de Madrid waaye jamono ji nag àbu googee mënatuñu wax ne kat dina am li ko waral moo di kili di Erik ten Hag di tàggat waa Manchester United moom dafa mel ni dafa xam ne Morata ndaanaan la tey mën na dugal te moom dafa mel ni am na bu mën a dugal te fiñaa bul da ko manqué loole nag moo waral mu dal di contacter ñi leen waa Atlético Madrid ba xam dinañu mën a jënd kili di Morata waxtaano nag door na diggante Manchester United nekk ci championnat bu Angleterre ak Atlético de Madrid nekk ci bu Espagne muy Liga Santander kon toppal dossier kile di Morata ba tey ji xibaar yi duna noppi dañuy ñëw ci kile di Marcos Alonso ak Bernardo Silva bu nu sukkandikoo ci BeFoot ñu gën koo xam ci bee football mi ngi ñuy xamal ne nag Barcelone ci boppam waaj na seen président bi la di Juan Laporta nee na benn yëg la am muy nu mu gën a gaawee mu buukale ñaari dossier muy kii di Marcos Alonso ne ca Chelsea ak ki nga xamante ne moom moo di Bernardo Silva nekk foofee ca biir championnat bu Angleterre club bi di Manchester City moom Juan Laporta nag nee bëgg-bëggam mooy nu mu gën a rek jamono ji amatul luñ ci dee Manchester City kii la di Bernardo Silva moom xawaan la pourtant nee na noppi na pour joxe offre bu baax a baax ngir mën a boucler latéralu Chelsea bi waaye nag milieu terrain bi nga xamante ne mo ne ca Manchester City di Bernardo Silva ñoom ñaari na yëpp nag bëgg nañu lool club bi la di Barcelone waaye nag waxtaan wi offre yi mooy xaw a jafeel mbir yi waaye bu dee gone yi rek club bi leen gënal xam nañu ko te mooy Barcelone kon nag dañuy ndar keppee doomu Gabon bi la di Aubameyang xam ngeen ne ma nga ca Barcelone ay joueurs ngir ñu mën a ajouter seen joueurs yu bees ca ndax loolee mooy règlement ya Aubameyang nag xam ngeen ne kilé di nga xamante ci ne moom moo di Thomas Tuchel dafa mel ni da doon gént tàggataat kilé di Aubameyang gannaaw ba mu ko tàggatee ca Dortmund waaye nag doon fa liggéey lu am solo te gone gi nag feñaabul lool lool loole nag moo waral mu ne dafa bëgg waa Barcelone lu mu gën a gaawee benn ñu andi crédit Aubameyang nga xamante ci nii moom moo di Chelsea loole nag doon nañu ca waxtaan waaye dafa mel ni gën nañu caa jóg ngir nee nañ amatuñu benn yëg-yëg ci crédit Aubameyang li nu bëgg moo di nu mu gën a gaawee ñu dal di koy jëlee ca Barcelone indi ko fa nga ci moom moo di Chelsea ci championnat bu Angleterre waaye nag xibaar bu ci rosoni rek danañu leen ko dëgtal fii ci Le Monde Sportif yi abonné leen te bés kolas de notification bi ngir di am ay xibaar yu wér te wóor groupe WhatsApp bi bu dee dugg goo lien bi tere laa la koy defal nga ñëw rek dal di tàbbi ci le sport sportif yi analyse très pertinent amul fay dara lépp gratuite le monde sport ca kaw ca kanam jaa ngeen jëf